man du ma géwal du ma lawbe waxoon naa fi ne man su ma demoon bay préfère pour nekk dara njaago laay doon su fekkoon damay préfère pour nekk benn xeet ni damay nekk njaago parce que li tax loolu man maa loolu sama ngëm-ngëm la bu yàgg. loolu dama kaa mës a gëm ba may xale ba tey. su fekkoon man maay duduwaat te damay dem nekk benn xeet damay préfère dem nekk ji njaago parce que loolu sama choix la comprendre nga. waaw du ma jël beneen xeet bu dul njaago nekk ko loolu sama ngëm-ngëmu bopp la. kenn yóbbu ma ci man maa ko parce que ñoom ñoo ma yar. ma xam leen bu baax kon du ma lawbe mais doomu soose piir la yaa ngi doog a wax nag. doomu soose pire laa. ak doomi bambara sama yaay bambara la sama papa soose la. non yaa ngi doog a wax xam nga li tax. waaw njaago yi xaw ma seen mélange bi la xaw ma li ñuy lekk la xaw ma mais njaago yëpp mën a fecc jëlal loran waaw. <laughs> yaa ngi dégg. Uh-huh. non njaago yëpp mën a fecc bizarrement mbëri njaago yëpp mën a fecc. Laurent Laurent. waaw si famille bi mu moom gan la ci fin bi ñun ñun ñun ñun ñun ñun ñoo yoroo ci fin bi. ak magam Liis Ndiago. Liis Ndiago gan la fa. Ah. parce que Liis dama dama ko doon gàddu ko yóbbu église. boobu bu ah. yaayam dee togg wala mu jàpp ni man maa ko doon yóbbu ñoo bokkoon benn kër. nekk nañ fa plus de ay sept euh, yoo xam ne ñooy ñooy ñooy fanaanandoo ñooy yeewandoo yaayam presque moo ma yar papam moo ma yar. ci hmm. kër googu laa yoroo euh, daan takkee ngemb maa ko njëkk tax ngemb foofu si kër gi moom daa judd rek nekk suñu dàq. Hmm. baabu ak euh, gabaar ñi ñoo fa nekkoon mag ak ñoom ak ñoom uh, kii naa la wallaahi donc ñii ñii ñii ñun ñoo leen man moo tax ma naan la su ma doon damay nekk uh, bu doon damay taamuwaat xet di judduwaat hmm. damay juddu nekk njaago parce que man maa xam li ma ci xam man kay maa ngi doog a xam ñoom liis fi ñu jëlee pecc mi pecc bu neex bi du jàmm gën kese ñoo zaal ñoo bokk fi ñeeroo non kenn waxatul ñoo ñoo yarandoom ñoom danoo judd fekk ñu si kër gi ñoom danoo judd yaru comme nii rek ñu judd yaru de moom man lii chaque dimanche maa ko doon yóbbu dama dégg Zarko di waxu waxu waxu waxu waxu waxu waxu tànku mbaam xamu bopp mbaam mais ah. musul ñam korket Zarko na bàyyi loolu. ak nga yab Zarko nag. <laughs> na bàyyi loolu dafa soof quoi. Zarko sa dafa soof na bàyyi loolu.